salaamaaleykum sama gars yi man la Aliou Marena Fadalin aka Tarba Dasso Casamance plus particulièrement Tanaf commune de Tanaf département de Goudomp région de Sédhiou maa ngi ziar waa Casamance di ziar Sénégal yëpp di ziar monde entier waa diaspora maa ngi leen di ziar Fadalin mi ngi juddoo Tanaf laal bërëb bu bëri ci Casamance usuy Ziguinchor Kolda ñëw ba bon bi ma commencé bi ma jàngee ci bërëb yooyu yëpp ma ñëw ba 2012 ma ñëw Dakar bi ma ñëwee Dakar en fait ma continuer ma carrière musicale parce que dama ñëwoon Dakar pour euh, Tuki. Tuki bi mu jëwul euh, am ma continuer comme ñep li ñuy def ah, def sama journée son ay gardiennage def naa lépp yàlla def bon mu am ay grand yu baax yu ma conseillé ne ma booy demal defi école nationale des arts demal jàngi musique comme dama bëgg musique si la dem en école nationale des arts mo jàngi musique deux ans bima ma fofu foofu ma ñëwaat si Adolphe Koli, renforcer waat sama musique encore ak di defaale ay euh, cours vocal tu vois donc. Euh,

moo ñëwee di leen seetaan ñii di ma yónni ñii di ma dàq affaire yooyu tu vois ma am amour fa laa commencé am amour concert fu mu am sax damay daw dem seetaan su ma ñëwee ñu na ko ma ma jooy xam nga ba ne garaawul musique bi foofu la commencé dugg ci man fa laa commencé am amour ci musique may woyantu di woyantu di woyantu comme ñëpp niñ ko defee ah. di woyantu ci euh, Fosco yee ci léeg-léeg ma dem sax si concert yi sob-soblu jël micro way di def sans tu vois amour bi foofu la ñëwee bi amour bi ñëwee foofu ma xool gars yi ne ma ah booy am nga talent pourtant boo góorgóorloo mun nga am dara ci musique bon départ dama gëmu gaw ma ko woon ma ne garaawul après bon sama parent yi tamit ñoo xam ne booy bi dafa gëm li muy def ba na ko après si lañ ma woo toog waxtaan ak man ñu ne ma bon ñun mënuñu la tere musique mais il faut nga jàng musique day ànd ak jàng ma boole ko ak jàng ma gis ni su ma ci góorgóorloo rek dinaa ci am dara ci waa musique noonu la ñëwee ci man mu doon benn virus ci man parce que toog naa 2014 ba 2019 ans woyu ma def musique ma am ay tolof tolof tu vois mais yàlla def na ni bi ma ñëwaatee ma ñëw ak doole. macha allah ma xam ne am naa place si musique bi góorgóorlu nag musique bi noonu la ñëwee ci man. single yi ma génnee bëri na de deux mille depuis 2012 benn son laa mosoon génnee muy Mama Love sama woy sama yaay laa ci woy rendre ko hommage après ñu dem 2013 ma wax benn son bu ñuy wax Mama Africa ma def stand by 2014 bi noonu ba 2019 te 2019 bi mu ñëwee nag ak mer ak xadar <laughs> ma tegle di son gars yi ne ma yow xanaa yoroo mais parce que ni ma moy yag mu je rek affaire bi la xam nga rek jom bi affaire yooyu enchaîné ay son ba 10 singles. tu vois 10 single ba waxtaan ak mu am ay grand yu ay maestro ay professionnel ci lañ mané boy li sa son genre son musical yi dafa mais il faut nga koy def live il faut nga def album tu vois si lañ tok defar projet bi ñu waxtaan entre ñu bu déggo ci lañu dugg ci projet album tu vois donc album bi non la euh té album bi biñ grand bu ñu toogee dañ ma non du doon album bo xamante da ngay dugg studio ni enregistré ko ni ni ni xawmo noy def mais il faut ñu wut moyen ñu def album bo xamante ça sera en live et puis c'est plus professionnel parce que yéen seen genre musique yi non la non la non lañ ko mënee jaay quoi tu vois.

tok ak samay nit samay staff ñu tok ñu waxtaan ba juboo ñu ne ma amul problème ñom ñepp ñu jog ñu jappalé ma surtout ku comme ni Mamour Kassé c'est moom may coaché grand bu baax machallah après si lañ soobu ci sunu album léegi bu ñu duggee ci sunu album ñu génné ñu enregistrer benn son bu wara a annoncer album bi mom lañu génné samedi bi passé mu tudd douma julo tu vois bi ñu xam nga album bu ne dafa war a am benn single boo xamante ni moo lancé juste bu ñu toogee enregistré def lépp ñu déggoo ni album bi dafa war a le 17 décembre le 17 décembre avant loolu nag si lañ génnee single bi bu tudd Duuma Juloo lancé ko One Guy album baa ngi ñëw le 17 décembre incha allah rek relation bi moom artiste Casamance yi relation bu baax la relation bu baax a baax a musuma ci am benn problème ak benn artiste Casamance vraiment di profité waale sax di jaale kii di Willy Boy Amadou Diallo alias Willy Boy di ko jaale famille am di ko jaale waa Gudom di ko jaale monde artiste di ko jaale jarbaatam di tonton Gilles euh, wax la ni àdduna gi rek mbiru yàlla moom kenn mënu ci dara tu vois relation bu nice laa am ak ñoom ndax génnee na def naa duo ak euh, Baye Mike defna duo ak Fafadi defna duo ak Baye Sey ah def duo ak yenen yenen artiste yu fa nek te des suma sañon damay duo ak ñepp ndax ñun ñepp ben lañ ay frère lañ ay sœur lañ tu vois vraiment ñu doon ay artiste yo xamanteni ni macha allah dañoo baax amuñu ben problème wa di len di ñaax ñepp tamit ñu gorlu wa ñu gorlu ndax suñu musique casamance bi genn am tole jëm ci kanam quoi. bon conseil bi may jox euh, euh, génération sunu génération bi ñun artistes yi Casamance yi moy nañu gëm suñu bop ñu xamné musique bu ñuy def dafa riche c'est c'est une musique tellement riche qui oh té ñu gor gorlu euh playback mënuñ ko bay studio mënuñ ko bay mais nañu gëstuwaat xam nga nit bo toogee surtout artiste bo toogee nga xol sa yeneen aînés ñuy def ak ñeneen ñi ñuy def parce que boo xoolee tey même rappeurs yi dañuy live pourquoi pas ñun ça c' vrai ça demande des moyens mais lo bëgg lu ne boko ko bëggee di nga ko am ndax sacrifice la laaj bu féké yow da nga ko bëgg comme carrière il faut te sacrifier tu vois ma leen ñaax encore ñu gëstuwaat sen bop ci live bi da live music live moy tax ñu may le cër tay monde entier fu ñu nekk ni ci monde bi gars live lañu ils préfèrent ñu en live que di déglu son studio le playback affaire tu vois live c'est plus professionnel c'est plus respectif les lay ci niveau boo fa yegg il live bi te ma encore ñu live bi ndax musique ñu la am am musique bi vraiment Lola quoi. projet yi ah, parce que projet bi actuellement. génnee nañ beneen benn projet mooy euh, duuma julooy mooy single bi war a lance annoncé album bi génnee nañ ko léegi beneen projet bi mooy dañu war a dañ ko war a clip te clip bi ñu ngi koy waajal yàggul dara incha allah bu soobee yàlla gars yi dañuy gis clip bi bu loolu weesoo ñu soobu ci liggéey bi ndax album bi bu ñu ko génnee la le 17 décembre ñu am ci réussite vraiment am ci succès loolu la ñuy ñaan def appel di woo ñë képp kuy Casamance joolaa bi pël bi séeréer bi xalpulaar balant bi njaago bi mankaañ bi man faada leen seen freer seen rak seen jarbaat maa leen di woo ngeen ñëw soutenir ma waa diaspora ci sama album bu bees mooy may waaj a génne di 17 décembre bu loolu weesoo projet yu bari ñu ngi ñëw ci kanam yooyu ay surprise la incha allah rabbi bu soobee yàlla bu buñ ci yeggee rek di ngeen ci xam dara li may tàggatoo mooy Je nuyu Casamance di nuyu au Sénégal di monde entier di nuyu sama fancy, di à staff di nuyu surtout ma directeur Abou Jean Ndiku l'infatigable Ndiku mention spéciale à toi dafa man vraiment maa nuyu di Sali de nuyu di nuyu sama waa dëkk waa Tanaaf Kafalel Nimbaara Papis Sara Jeeju leen Fatiga maa ngi ziar ñëpp di may kii bu ndaw rek <laughs> falmaloon ne duuma julloote baay la ah, duuma julloote baay la tumoɓe donnale kankanɓe tilale luwo yello takiñollote baay la tole ka fo molumba ma kendolule Ah, duma julote bayla alibulloko sinye bidumbe julamma albulloko sinye bidumbe jabalamma caliba kulo bute bendonna bendonna jamro minde seyala biwo fosilimbo biwo biwo fosilimbo biwo kama bulloko sinye aldumo mamanye linimbara fadalin aka tarbadaso e tarbadas, e tarbadas.